maanaam ko xam da ngay wekk da ngay respecter sa population man damay wax ni tubaab yi seen njidi epp ñu yërmande suñu njidi yi tubaab yi ëpp ñu yërmande ñom duñu doxalante yërmande ak ñu jité jiite ñom respect lañ am ci seen population waye njidi yele du dañoo yërëm ñu ñu jiite mais dañ leen a respecté ñun souvent mën nañu am sax ku bare yërmande. waaye li gën a bari ci suñuy njiit amuñu respect ci ñi ñu jiite loolu nag ci nattu yi la bokk ñaan yàlla mu may nu ku jub ku dëggu ku bare yërmande waaye ku ku fonk ñi ko jiital xam li tax ñu jiital ko mooy lan parce que nag sëriñ bi ñu dénk la lu ñépp bokk waxuma loo ñàkk mbaa nga donn ko ci sa baay de dénk la lu ñépp bokk nga téye ko di ci def lu la neex ak di ci jox ku la neex ci façon bu ñàkk kersa kenn musul gis lool xam nga ne yow ñu dénk la lu ñépp bokk ngay tabax hôpital tuddee sa jabar ci alal ji ñépp bokk ani kersa ana respect alal ji ñépp bokk waxuma sa oto waxuma sa kër jëndal sa kër mayal sa jabar jëndal sa oto def ci sa turu soxna waaye hôpitalu askanu lëmm nga tabax ku tuddee ko sa jabar yow ci yi jàmbur loolu du problème mu yërmaan loolu problème mu respect la rek ah ñu fal leen ay ministre ki maire seen yitte mooy ñuy inauguré ay mbedd di tuddee seeni goro bu ñee di tuddee seeni jabar ñii di tuddee seeni goro loolu natt ko loolu kenn xamul lu mu doon loolu noo seulement ñàkk kersa mais manque de respect te yooyu dafa am lu muy junj dafa am lu muy junj lu bët dul tege te mooy jaawale li nga moom ak li askan wi moom moo tax danay baax nañuy réviser histoire Omar ibnul Abdul Aziz ñu xam ñi ni dénk li ñu leen di dénk fan lañ ci toll ak ëllëg lan la ñu war a lay ci kanamu yàlla nattal sa alal la nga am nga di ko def tabaxal la nga moom nga def ca lala neex waaye la la ñépp boole dénk la ñu di ci bàyyi xel te loolu néew ne régime yi fi jaar benn bu ci mucc man waxoon naa ne li ñu gën a banaliser rek mooy nga ñëw fekk ay oto yoo xam ne Sénégal a ko moom Sénégal moo ko moom na tudd Sotrac na tudd Dakar Dem Dikk tur wi amul solo waaye oto bi moom république bi moo ko moom nga def ci peinture sa parti yow régime bu ñëw rek xoos peinture boobu def ci peinture u loolu fa la ñàkk tàmbalee ñu banaliser ko ku mën a xool li koo dénk oto koo dénk oto mu dindi ci sa tur def ca turam xam nga fa mu jëm ak yow lu mu dawal bu dee da nga gis fukki xamal ne téye na ñaar fukk te xool leen car sotraak yeeg dem dikki ñaata couleur lañ fi am boobaak léegi régime bu ñëw ak sa couleur bopp loolu màndarga ñàkk a màndu la te loolu bu ñu ko corrigé wul est-ce que dafa war a continuer noonu di dem mu mel ni dafa nekk lu garaawul te lu garaaw la nag lu ñuy lu ñuy àtte la bés pénc nañu bàyyi xel ne àddina bi yàggul yowmal xiyaam dañuy taxaw ci péncu yàlla ma lépp di wax ñu bàyyi ci xel